les membres du gouvernement wala la réaction de l'État mu am ñoo xamante ne ñoom nag ñoom ñooy jël la relève bala ñun ñuy balaa ñun ñu ñun également de manière euh, on va dire à côté ñun également on fait ce qu'on a faire loolu kese moom moo des Mimi Touré balaa ma jël sama sama sama sama invité Mimi Touré c'est comme Cheikh Niass en fait mais y a des personnes yàlla moo koy def j'ai beaucoup de respect pour ñoom euh, parfois même j'ai de l'affection comme ku mel ni Cheikh j'ai de pour ñoom ce le cas Cheikh Niass moom voilà c'est plus le cas et c'est dommage euh, mais Mimi en tant que une femme dans la politique ñun suñu génération ak fii ñu nekk bitim réew dañu gëm jigéen boo xamante ne ne tu te bats tu tu tu tu tu es indépendante euh, doo jomal dara sa bopp ñun fii dañu gëm loolu on se bat ñun génération africaine boobu lañu jigéen façon jigéen boobu lañu du duñu dépendre si góor suñu suñu àdduna defuñ calqué wuñ ko ci ay voilà on dañu indépendante ci wàll politique de Afrique de l'Ouest Sénégal lañu soxla femme yi mel ni Mimi mais Mimi Touré quand bu ma xoolee ak Sénégal premier juin deux juin li ñu dudd Mimi ngay femme d'État avec tout le respect que li ma lay jox bi ma lay jox yow nga nekk femme d'État yow mu meloon ni comme Ousmane Sonko ndax yow danga xam luy état Mimi Touré yow doo activiste comme comme kom comme ay Guy Marius Sagna yow femme d'état nga ñun information yi ñu yor yow am nga information yooyu Mimi Touré est-ce que yow da war a xool yow sa sa sa mer bi nga mere Macky Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar ndax sa frustration sa colère dafa war a nekk au-dessus du Sénégal nga nekk une grande dame moom laa la tegoon. nga xam information yu ñu am nga xam ne ñii dañoo bëgg a yëgal Sénégal nga ci ànd di leen di jàppale pour sa carrière parce que da nga bëgg a fayu pour esprit de vengeance ak ñeneen ak ñeneen ñoom Cheikh Niass et autres après je me dis lii on peut pas pardonner ça même bu xeex bi jeexee ce sera difficile à pardonner ce sera difficile à pardonner nga bëgg nit bu bëgg a taal Sénégal yow nga xam ko ak lu la metti ci àdduna am nga fi nga war a yem am ay limite Mimi yow si nga agité nii yëpp parce que xam nga ne danga ragal président Macky Sall am na lu mu am ci yow lu rëy yow Mimi Touré nga yaakaar ni ragal ne dina ko utiliser contre yow loolu moo waral Mimi Touré di agité wu nii Mimi Touré ama guma joxaguñ ma euh, joxaguñ ma amaguma droit wax mais bu dégloo lii xam na ne xam naa te am nañu xam dafa am loo xam ne président Macky Sall daf ko yor ci yow xam ko muy lu wérte wóor nga ragal mu utiliser ko contre yow moo waral agitation bi yëpp te loolu bés bu génnee nga yàqule lu bari gars yi est-ce que xam ngeen ne Mimi Touré depuis trois semaines elle a été conseillère secrétaire général bu ONU c'est tout récent ya y a il y a a à peu près trois semaines ah ni ma ko waxee Cheikh Niass mi mu recule hier elle était pas du tout zen pas du tout sereine Mimi Touré coow li ngeen di dégg ci ONU Mimi Touré mooy ruube ci suuf loolu da lañ ma wax tata Mimi. ñu ne ma nag mu ànd ceeg Yacine Fall kan mooy Yacine Fall mu ngi biir Pastef kan mooy jëkkëram Jacques Habib Sy Yacine Fall sax mun nañu comprendre parce que Yacine Fall tamit la wokk Mimi moo xuri proche am parce que am na loo xam ne dañ koo am ci ku ko jege lool te bu génnee du baax moo tax ñoom ñaar ñuy agité wu li ngeen dégg coow li ci mbirum ONU yëpp ñaari femmes yooyu la il est 39 foog ma jël sama invité li ñu xam ma bari mais may leen ma ma ma ma ma def benn euh, ma nuyu suñu papa Robert Bourgi donc je je je fais un coucou à notre papa notre tonton je dirais euh, monsieur Bourgi Robert Bourgi euh, j'ai beaucoup de respect beaucoup d'affection pour lui on s'est jamais vu mais j'espère qu'on se verra donc euh, à Paris euh, donc qui est en train également de se battre pour la République pour le Sénégal en tout cas voilà donc beaucoup de respect à monsieur Robert Bourgi donc gars su ñu jógee euh, euh, ci loolu may leen ma jël euh, Moustapha Diakhaté parce que sinon dinaa wax ba génne yoo xamante ne nii waruma koo wax may leen ma jël donc ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Diakhaté mais su ma leen am na ñu mën a mat yow da nga da